dal dina jàmm mbokki internet yi nga xam yéen a siif ci xibaar kii di ba Badara ndaw nag ginnaaw bi nga xamee ne wuy ji na boroomam ba nu jëbal ko ko waaye nag kii di Karim Xurum Xaq nag dellu na fu mu miin muy ca kaso ba ginnaaw loola nag mu ngi wax ci eh, li nga xamee ne mooy faatu ko Alioune Badara Ndao looloo war a nag Karim Xurum Xaq waa dikk ñëw jël si ko yóbbu ko fële nga xamante ne bi mooy ca ndungu siin moom ku Karim Xurum Xaq nag mi nga xam le ne Alioune Badara Ndao lii ko yóbbu nag ca la doon doon wax ba tax na ñi nga xamante ni bi ñooy waa dikk ñëw jël si ko ngir leeral li nga xamee ne wax na ko ak fan la ko teg moom Karim Xurum Xaq ci wax ji nga xamante ni bi ni wax na ko ci faatu ko kii di Alioune Badara ndaw nekkoon imam bu mag waaye nekkoon nit koo xamante ni bi ku nit ñi fonkoon la lool waaye it nekkoon koo xamee ne ku ràññeeku woon la ci loxo yoon ginnaaw bi nga xamee ne yoon ñi ngi ko doon toppe wàllum terroriste ba jàppoon ko yóbbu ko moom it fee ca ndungu ko féexal niki noonu nag ba ci jógee la wopp wopp soo xamee ne bi ko nit ñi yëgee ak bi mu faatoo daanaka benn la moom Alioune Badara ndaw nekkoon imam